bismillaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim barkeb sëriñ seex ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare jiitatu nuyoo bi sunu sëriñ sunu kilifa sëriñ Moustapha ñun nag fu ñu toog ñu ngi toogal waa wilaaya Fam soxna faat Fatma Mbacke di kontaan lool nag si seen ñëw gi ak fekk si ngeen fekk ndax ñun amuñu lu dul amuñu lu dul sëñ Xaadim amuñu lu dul soxnaam di soxna maam Fatou Diakhaté mi nga xam ne moom la ko yàlla booleel muy dooyu bàjjanam te di fi sàkku ngërëm sant bu baax seen teewaay bi de moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax chaque année day gën a yokk ndax yaakaar nañ ne daaw fii ci kër gi togg nañ fi fukki nag ak juróom yaakaar nañ ne ren defe naa mën na ñaar fukki nag ak juróom ak ñaari giléem ci lépp nag soxna maam Faat Jaxate mi ne ci kër gi di fi sàkku barke ànd kooki bokkam ànd kooki yëf loolu rek euh, moom daal nu mu mënoon suñ Tuubaa daal dafa amul tànk ginnaaw ndax chaque année day gën a yokk chaque année moom day gën a yokk at mu ñëw rek day gën a yokk ñu ngi koy sant nag baax di sant sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sant sëñ Mbacke soxna loo mi nga xam ne mooy waajur sëñ Xaadim te moo ko dalooloon fii di Louga boole ko ak waa Louga waa Louga nekk section bu jàmbaare section bu am passif section bu amul morom wax na maam Faati moom danoo doyut ci moom seere ndax danoo bokk ak waajuram ndey ak baay soxna may mi ko jur bokk ak sëñ Mbacke soxna Lo waajur waaye maam Faati moom dafa jaay lépp dafa ko taalibe bokk taalibe yi moom kenn amut seen fay ndax démb day taw tey day taw te tey yaakaar naa bi 10 heures di jot fekk nañ ñu si mbada yëpp kon ñoom seen pas-pas ak seen takku ak seen bëggub liggéey ak bëgg seen xaadim moo waral lool ndax une fekk na añ yëpp pare bay xaar ndigal liggéey bi nii liggéey lu ci sëñ xaadim ñàkk ak lu mu ci def yàlla na bu déwénee muy asaka ñu ngi ciy sàkkoon ngërëmul sëriñ Cheikh Amadou Mbacke ndax ñun amuñu lu dul sëriñ Cheikh amuñu lu dul wilaaya ñun wilaaya li sëñ Cheikh jur